salaamaaleykum mbokk yi nuyu nañ leen bu baax a baax tey nag euh, ñu dellu siwaat ci seen émission 7 voix du cœur am ci mbégte lool lool daanaka rek di leen wax ne à chaque fois bu ñu jàkkaarloo ak yéen comme nag nu ñu koy defee chaque mardi 21h bu jotee dañuy am mbégte ndax euh, kii wax ki koy déglu di ko seetaan yaakaar naa mooy mbokkam kon nag mbokk yi di leen wax ne jamono ji may wax ak yéen maa ngi Parcelles Assainies unité 11 ans ñu ñëw seet si ki nga xam ne rek mooy euh, Bakary Boubacar Sané Boubacar saane mi ñu seet si tey nag euh, dañoo ñëw euh, ndax nag dafa doon koo xam ne rek euh, jàmbaar la bu jógee fi nga xam ne rek mooy dëkkam daal di ñëw dakaar di fi liggéey liggéey fi nag loo xam ne nag ci la daan téye njabootam. ci la daan suturloo ñu euh, dema dema dem ba en 2000 euh, jabet daa di koy dab moo dund ak jabet bi ba tey continuer ci li nga xam ne rek mooy feebar bi di ko traité euh, fële ca Abbas Ndaw waaye nag di jéem a à chaque fois rek xool nu muy dimbalee tamit njabootam malgré que mi ngi feebar waaye nag dañoo dem ba jamono yi un mois la def Euh, tànk bi euh, mel naka euh, noo xam ne kenn mënu ko nettali dama leen di bàyyi rek mu daal di nuyoo ñu ñëw ci léegi léegi léegi Boubacar Sané mhm. nuyu nañ la bu baax yaa ngi jàmm di la bàyyi rek nga nuyu ni ñuy seetaan fay naa leen bu baax a baax mhm. maa ngi nuyu ñëpp waa 7TV maa ngi leen nuyu mhm, ñu ngi lay fay kontaan lool ci seen déplacement jabet la ma yàgg ak moom depuis 2000 ay dem di ñëw mais temps yi moom daf ma indil problème ça fait tout un mois tànk bi daa futtu woon tuuti rek futtu boobu moo yéeg ba ci kaw yéeg mu ñuul comme lu tétanos ma daaw dem Abass Ndao ñu xool raxas ko ba mu xonk defal ma traitement bindal ma feuille pour ma dem urgence moo demee urgence ñu xool sama suukar bi boobu suukar bi était à 4 grammes 46. 4 oui c' était trop. Mm-hmm. mais nag euh, médecin bu ma dajal jàmbaar la. yàlla def na ci sutura ah, def ci sutura ba suukar bi wàcc. Mm-hmm. ma ñëw kër ga. léegi bu may dem damay jël taxi 3000 aller 3000 retour mais bu dee lundi la moom mille lay fay. parce que lundi bi dafay xat affaire yi métti loolu ci man. durant un mois dem boobu ma defee calcul maa ngi presque sept cent quatre vingt mille. te aw ma doole. am na ay bon volonté ñu may dimbale ñii di ma yónnee cent mille ñii cinquante mille ñii cinq mille ñii trois mille. ñi nga xam ne moom ngay jël di ko paasee di ko fajoo kon lu may kiiyee. Mhm. saa bu kiiyee ma collecté loolu ma daw dem faju mhm. vraiment euh, euh, bi ngay jógee fan mooy sa dëkk. Inor. Inor si fan ah. la département de Bounkiling. Bounkiling waaw ah, région de Sédhiou mais Inor commune la. Mm-hmm, ah, uh-huh. euh, ba ngay jógee foofu di ñëw euh, Dakar euh, c'était en quelle année. c'était fii ma jógee foofu non Tamba laa nekkoon 94 laa jógee Tamba ñëw Dakar. Mm-hmm. waaw moo ñëwee fii takk naa fi jabar am ay soxna. Mm-hmm. am ay doom doom yu mag. da jot naa maye sama ñaar doom. waaw am naa beneen doom bu jigéen fa nekk. boo xamante ne 17 ans la am. bon rakkam bi boobu ñoom dama leen évacuer Casamance. léegi man moom maay dem di ñëw saa bu ma tanee tuuti rek ma daw dem. seeti njaboot bi léeg-léeg une semaine léeg-léeg deux semaines ba ñibbi si. waaw euh, tey jii euh, gis nañu en 2000. Euh, bi la jabet di attaqué nan nga xamee ne jabet la. man daal dama takke fii jabar muy sama deuxième femme ma nekk ak moom. ba six mois yi mat ma jékki-jékki rek sama yaram yépp wàcc parce que dama amoon poids. Hmm. dama daan dem ba cent dix kilo waaye hmm. mu rees dem hôpital dem di ñëw <clears throat> après benn jour ñu ne ma def test suukar ñu xool bu ñu ko xoolee rek ñu ne danga am jabet wala ah bon ñu ne ma waaw. ah en 2000. en 2000. Euh, boobu amaana jabet boobu xamuñu ko bu baax. waaw non xamuñu ko bu baax woon feebar boo xam ne maîtriser woon nañ ko. voilà naka la demee boobu man nit maîtriser wu ma ko. Mhm. bon léegi may jël. buñ la ko waxee si si si. Ah. lan nga yëg. non buñ ma waxee si saa si ma ree mu ne ma lu tax nga ree ma ne ko non dama xam ne feebar yi benn la yow lu la dal keneen beneen façon feebar moo koy dal te amul feebar bu dul wér. Mhm. ci àdduna. feebar bu dul wér ci àdduna ma ne ko mooy dee gëm naa sama borom ne bii dina wér. boobu takkuma woon sama gajawar bi. may dem noonu di naan ay garab nit ku ñuul di defaale test di xool mais nag ci mois de janvier deux mille trois bi ci la commencé di may indi problème mais musuma daanu. musuma daanu crise yàlla xam euh, musuma daanu musuma def te tout le temps maa ngi yoon Casamance mhm. léeg-léeg mois bi ou trois fois aucun problème mhm. damay dem Casamance damay dem Gambie mhm. te lépp lu sama am fii comme xew maa fa fii waa koy fomp escalier yëpp parce que aw ma problème nga jékki-jékki mu commencé indi ay muy loo xam ne lu doy waar la lu metti euh, maa ngi dégg léegi nga ne euh, da nga doon dem ba cent dix kilos euh, boo demee tey jii ku la xool xam ne kon li nga perte ci poids bëri na lépp ndax jabet dañuy dem seetaani ay témoignage dañuy dem seetaani benn témoignage ah. muy sa sët nga xam ne rek moom it dund na ko ak yow naam olof bi leerul mhm. waaye dañuy dem déglu ko dellu si léegi ci waxtaan bi sur la 7TV affaire bi feebar bi yàgg na si moom daal yenn waar faj na ba sonn fan moom di jaabante hôpital ba sonn kiiwul moo tax kii ko noonu. waa waa sonagul noonu waa affaire bi moo si moom tànk moom day jékki-jékki affaire bi mel ni ndoxu tànk moo sotti tànk bi. aju ko kuy kuy woor bu gisee dimbal na dimbalel chaque jour la chaque jour la man na bu ma gisee ko jour mu ñëw rek damay jooy rek waaw awma lu ma xaj faje awma xaalis ñu amuñu dërëm loolu laa wut bu bu gisee rek ku dimbale nga dimbali ko day dem hôpital baasi ndaw la dem chaque jour waaw kuy gisee nga dimbale nga jàpp si rek waaw jërëjëf euh, kon nag euh, gis nañ ko euh, nee na bu gisee ni nga xam ne rek noonu la la feer bi def day am lu ko metti c'est normal ci koo xamoon démb waaw uh-huh. day jooy rek day jooy rek waaw mais dama am sama benn frère mooy ku leen woo Abdou Daabo mm-hmm. suy ñaar yaaye bokk ndeeg baay moo mën a mais waa 7TV dañuy dimbale nit ñi mm-hmm. dama leen di woo pour ñu ñëw foofu nga def reportage mm-hmm. parce que jabet dafa méttite sa jabar bi tollu na foo xamante ne xaalis la laaj laa ngi meen dimbal ma ne ko mais aucun problème bu ma amee ndimbal kay ma jël te cëpp koy dund ku ne boo amee ndimbal nga jël waaw mu woo wax ma waaw set TV ma ne ko amul benn problème parce que man du ma dem fenn bu ma génnee hôpital laa dem parce que manuma dem fenn boo ñëwee pour yéeg loolu mooy coow li bu deuxième laa nekk moo tax ma xasee ba yéeg hee du ma teel a fu mu toll nii moom wax dëgg bu dee damay dëgg soxla naa ndimbal. gis nga sama tànk bi sama yaram bi dafa néew. nit ñi bu ñëwee boole bu ma wootee dama leen jox courage ne leen maa ngi tane maa ngi tane maa ngi tane waaw dama leen jox courage maa ngi tane mais sama tànk bi dafa néewi gis ngeen ko dafa néewi fu mu toll nii loolu xaalis la laaj. Mhm. xaalis la laaj bu wan kay chaque jour maa ngi ci ngeen dum xaalis. xanaa ñoom bu ñu liggéeyul ma tëbbal benn dimanche noppalu mais bu ma xëyee six mille la daal aller retour loolu moom du ñàkk waaye il a six mille cinq cent. six mille cinq cent six mille. aller retour ba Abass Ndao waaw. y compris garab yi nga jënd te dinaa tegle semaine maa ngi ci yoon bi dem di ñëw. chaque jour ngay dem pansement waaw pansement bi il faut chaque jour. te maa jënd complexe maa jënd bande maa jënd dakay. loo sale sax maa ko jëndee sama bopp joxuñu la dara bu dee pharmacie bii laa ko jëndee deux boîtes rek c'est mille francs mais bu dee maa ngi ci biir Abass Ndao deux boîtes ñoom 1500 lañ koy defee boobaa bu fekkee yow tombé mu yore xaalis dañ fay jëndee 3000 mu mën a yore 4. Mhm. mais c'est pas difficile c'est pas facile c'est pas facile franchement. Mhm. c'est très très dur pour moi. Mhm. te nu ma tëddee aussi. yor naa njaboot kër gi gannaaw yàlla ak yonent man lañ yakaar mhm. lu muy faju ni yëpp lu fa xew foo ma def ko loolu mooy sama problème. Euh, naka ngay dundee ak ñoom euh, feebar bi. non feebar bi néew bi bu mu commencé. plaie plaie bi nan la commencé. parce que gis nañu plaie bi ni mu mel doy na waar. doy na waar plaie bi plaie bi sax def ma muy problème plaie bi def ma problème de. Mhm. parce que ku ma chino bi. nee na ma góom bi moom dina wér. day wér waaw. Mhm. nee na ma góom bii ah. man ma xaw ma beneen góom bi bii dina weer parce que amul det du génne ndox et puis liñ ko soxla di xoos nañ ko ba lépp xonk léegi pansement waroo tëbal benn fan. Mhm. daal di ma jox adresse kenn mu ñëw fii mu defal ma pansement ma jox ko 5000 mu ne 5000 ñoom duñ defee loolu 7000 lañ koy defe ma ne ko ah man de mënuma continuer ci loolu parce que awuma doole. 7000 ko chaque jour chaque jour pansement cette nuit te moom géej waay la dëkk fa lay jógee di ñëw. buy dem liggéey mu jaar fi dafa am pension dem. léegi fi mu ne nii yow. Ah. Euh, dangay ngay obligé. Hmm. di jóg wàcc. deuxième étage. nga nekk wàcc. forcé jël taxi dem jël taxi ñëw. taxi ñëw hmm. waaw dama am bu nekk ci man chaque jour moom laay àndal ñi dem ñi ñëw. Hmm. waaw mais métti na trop saay boo xëyee yaay jënd. complexe boobu toujours ñaari boîte lay jël 3000 ak 8500. Euh, d'accord waaw kii bi bande bi maa koy jënd. 600 xaw ma à 700 comme ça boobu tamit ñaar man chaque jour que jiye dina def dina dinaa def 10 000 francs. Mhm. à chaque jour sans compter taxes chaque jour dinaa def 10 000 francs. Mhm. Euh, metti na daal. <laughs> Euh, moom laa lay laajte nii euh, plaie bi. Ah. Euh, gis nañ ko doy na waa naka la commencé. plaie bi dafa commencé dama soloon kawaas rek. Mhm. bon te distance bi ma sori sori yow kii soriwul quoi. Mhm. distance bi ma dox. waaw léegi ma jëndee jën ma ànd ak sama doom bu jigéen bu ndaw léegi bu ñu ñëwee. kon loolu fan la woon fële. boobu village village la woon waaw ah. ma bëgg a dem sangu ma dindi kawaas bi rek kawaas bi futtu mel ni foo xamante ne faa tuuru ndox mu tàng. ma ne ah tiens lii moom muy la mais comme garaawul woon noonu ci baanaaw mag wi la commencé ñëw ci kaw tuuti wala noo am problème ma dem ma sangu ndekki dem tëddi nelaw la laa demee nag mu mu fóot mu ñëw ba ci kaw. mu yëg si saa mu yëgee si saa ne ma commencé am palu suba ngoon gu dag ba ci damaa liw malgré dama tombé foofu seddaay mais damaa liw ma def quatre jours boo xamante du ma nelaw. cinquième jour nag bu ma ñëwee fii tàngal ndox sangu tëdd boobu nelaw na bu bërsët après moo xam sama jaar ñoo na muy jooy mu mag ki fi toogoon. man leen feebar ak dee ak joo sori. Mm-hmm. jarul ngeen jooy moom laa àndal. dem fële ñu boo leen gisee ñoom ñi nga xam ne ñooy sa entourage ak ni ñu taxawee ni euh, da ngay gis sax ci témoignage yi malgré que ñu mm-hmm. mais dañuy jéem a forcer. pour yow euh, lan ngay sentir yow. ñu ngi ñu mooy àdduna. Mm-hmm. nekkal nit ñi ñi nekkal la. moo fi tëddee ba tey amul jour buy tëb aw ma visite amul jour buy tëb dëggu awma ma coup de fil mais remercier. sama sœur de passage Fatima Ndong lu ma ko wax rek na mu cher seet dina ma yónni ci tàng-tàng lu ma ko wax rek ci tàng-tàng la koy yónni moo lay jàppale yenn saa yi si garab yeeg dina ma jàppale ma am sama benn booy bu nekk bitim réew aussi El Hadj jàpp ci loolu wax dëgg yàlla depuis feebar bu commencé ba ba tey moom it loxo maa ngi ci mhm. avant play bi sax am léeg-léeg sama xul ak moom moo mel ne bu lekk suukar bul def lii bu def lii. mais daan nga sim sa waaw naa sim régime gis nga. mais euh, ñi ngi woon ci mu ngi fii kooku la jabaram mu nga doon waxal. waaw. bu ma ñëwee ba léegi chaque jour ko jiyee fi sama compte dafa def lu takku pour suba ma xëyee lu may paas ak lu ñuy ndekki. Mhm. chaque jour. maanaam daanaka moom mooy yor kër gi jamono ji. waaw fu mu toll nii. Mhm. soxna si foofu lay yandu. këram mu ngi fi sama gannaaw sama wet sorewul fii mais yoroon naa fii ñoo xamante ne ah bonne volonté a ngi fi ñii ñëw di ma jox deux mille ñii vingt cinq mille ñii cinq mille ñii dix mille selon am am bi nu mu demee mhm. waaye da ngay gis ne luñ la jox rek si saa si lendemain bi moom ngay dem fajuwaat non lu dugg rek yoonu hôpital lu dugg rek yoonu hôpital dama doon jënd foño mais sama foño bi sax dafa jeex tuuti moo des moo xamante ne benn añ la laa il faut ma dem jënd. pour teg. foño foño moom ngay lekk. waaw foño laay lekk lu bëri bisu ma demee ba namm ceeb aussi dama la ne defoo ma supp kanja ma kanja bi bëri. bon maafe moom bu ko defee toujours day dang ma teg loolu de côté. waaw. Euh, léegi tey jii euh, yaa ngi may wax bi ngay jógee village euh, plaie bi commencé woon na ba pare jabet bi demoon na ba quatre et quelques. non mu la wax nii. ku dégg jabet 4 et quelques. Euh, euh, c'était trop comment comment xëjoon nañu. moom lan la moom loolu la moo sax loolu la moo urgence médecin bu fa nekk la moo mu ne ma am sens da am sens lii ku mu dal ku ne ko boo motoon sa cinq du ma daal man ma doon ma ne ko yaram nit ñi ñoo bokkul. Mhm. ak mhm. psychologiquement. parce que jàpp ne dee mooy jot ma dem mais du blessure. ndax nit damati na damati ba yax yi génn ñu faj ko mu wér. ah léeg-léeg sax yow da ngay gunge malade hôpital mu gunge la ci armée yi. Mhm. donc man gëm naa ne dee moom benn la bu ñëwee wéer dem ñàkk wéer dem. ñàkk dëgg la nag boo feebaree da faju. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. boo feebaree da ngay euh, faju nga dëkk tamit say dëkkandoo yoo xam ne rek euh, macha allah euh, ñu dem seetaan ko moom. lamin Lamine Lamine tamit ku ci jàpp la moom it ku am yërmande ci yow ñu dem déglu ko ci témoignage daal di soit léegi ci waxtaan sur la 7TV ci seen émission 7 Voix du sama dëkkandoo la yàgg nañ ñëw dëkk fii boobu ba léegi baax am yëg-yëg ci nit ku mu gis jàppee koom boppam. tey bañ fi dëkkee man ak moom ba léegi yàgg na yàgg na war na fi def ñaari at mbala ñetti at def nañ ko fii mosuma kaa dégg ci dara moom tam mosuma dégg ci dara waaw. jabe bi daan na ko daaneel nii mais daanul def nii ci moom mais après fan yi daal depuis ay un mois yooyu la def nii di futtu di def ay góom sonal ko trop daal metti rek parce que mënul defal boppam dara lépp dañ ko koy defal lépp dañ ko koy defal man mii yenn saa man lay woo pour ma génne ko mbala yenn dugal ko affaire yooyu dafa métti trop ci moom daal am ci lu ñu métti rek parce que moom douche bi sax moo ko daan raxas bokk bi muy wër douche bi sax da ko daan raxas te balaa ñëw xëy fekk mu raxas douche parce que maam rek ñoo dëkk fii mais bu jëlee bi ko affaire yi daanee pour mu génne sax def dara problème lay nekk ci moom mu neen loo xam ne métti nañ trop itam am na lu métti trop ko actif la woon daanul xaar nit ci dara waaw daanul xaar nit ci dara moom tout le temps daanul sax yendu ci kër gi day génne dem hôtel boppam ñëw mais kooko dem ba xam ne fu mu toll nii pour mu génne néegam sax problème la xam nga loolu métti na te itam amul doole boo xam ne war na mën a faj boppam amul doole boo xam ne war na may fa boppam ndax amaana bu amoon doole boo xam ne war na may fa boppam kon heure bi dépassé na fii heure bi jóge na fii mais ba mu ñëwee ba léegi tànk yi gis nga tout le temps mu ngi siit ay ndox muy dem hôpital di dem di ñëw man chaque jour mu gisee daf may mais jour moo ko njëkkee gis ba dugg ci néegam xool ko jour boobu dama am lu ma dama daan gis ñu bànn ko rek mais mu ko jógee dama am lu que moom jàmbaar la itam mag la moo yor këram mooy defal boppam lépp bu demee ba lii dal ko tey jii fan lay yoree ay njabootam ci koo xam ne moo doon dem di lijjanti ji di jox ay njabootam ñu lekk waaw néeg bii moom moo koy fay kon bu ko lii dalee ay weer mu toog fayul néeg fu mu jëm bépp koo xam ne mën na ko jàppale mooyoo jàppale ñu ko képp koo xam ne mën nga koo dimbalee rek nañ ñëw dimbale ñu ko. jërëjëf euh, kon nag euh, ñuy wax ne rek euh, mbokk yi daw na yaram doy na waar Baba bu Boubacar Sané jabet ni mu ko def metti na waaye tamit dig ci sensibiliser waale nit ñi ci li nga xam ne rek mooy jabet ndax nag jamono ji mu ngi def ay ravage ci mim réew gis nañ ne bu njëkk ba boo ko déggee bala nga ko déggaat dina yàgg mais fi mu ne <coughs> amatul xale amatul mag ñëpp a ngi ci biir ñëpp ñëpp ñëpp gis nañ ne ñi euh, muy dal bëri nañu te tamit euh, ni muy def euh, doy na waar ba pare nag ba ci Abass ndaw boobu ngay wax boo demee da fay fekk yenn saay ay xale yu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw yu tuuti yoo xam ne jabet sonal na leen muy loo xam ne daal euh, je me dis que maîtriser guñ ko bu baax a baax a baax comme niñ ko war a maîtriser euh, kon nag euh, di wax ne rek nañu bàyyiwaat xel ci feebar boobu ndax nag doy na waa feebar bu doy waar la tonton Boubacar ñu bàyyi la rek nga wax ñu mm. ci li nga xam ne rek non mooy sa quotidien fii maanaam boo demee hôpital ñëw na naka ngay dundee say journée non non man kay bu ma xëyee mm-hmm. dem hôpital toujours dama leen di topp feebar bi nu mu demee mhm. mais comme góom bi maa ngi koy gis dama koy photo chaque étape maa ko photo chaque étape ma xool comme maa ngi koy tiim ma xool ma laaj ko nekk léegi ni mu demee tànne na ma ne ko bu tànneewul rek wax ma bu tànneewul rek nu mu mënta mel wax ma na ma non comme dina ñuul ñuul bi yëpp moom amul problème te dinañ ko kii mais ce qui me mooy néewi bi. day néewi waaw non bi jógee fi wàcc fii góom bi. waaw bi ci góom bi la commencé ñëw ci ndigg li wàcc ci ah, bi. ah ba ci kaw. waaw ah, na ba ci kaw kay. Hmm. yéeg na ba ci kaw parce que fu mu tol nii lu yàlla xam doy na lu yàlla xam doy na. dund doy hmm. loolu moo ma dérangé mais. n'empêche mais mais mais loolu est ce que yaa si taxaw tamit di ko faj est ce que yaa yaa ngi xool genre urologue wala. yooyu si demoon nañu gis urologue. Mm-hmm. bu mu jëlee mu xool après mu jël piqûre jam xëcc muy ndox bo ak ci la lee bi il faut mu def lii rajo bi def lii def lii comme ça ñu xool. Mm-hmm. rajo yi jot nga ko def. ma ne ko d' accord. léegi rajo yooyu buy paaseerul parce que c'était cinquante mille wala c'était soixante mille. yëpp non soixante deux mille. non boo calculé ñaari yëpp ça fait cent presque cent cinq mille. ñaari rajo yi. ñaari kii yi. Ah, cher na kay. waaw non commencé ma beneen bu ma kii yee. Mhm. boobu moo nekk cent moo nekk soixante mille. soixante mille. voilà soixante mille teg na sax deux mille cinq cent. Mhm. soixante mille cinq bii cinquante cinq mille waaw dëgg yàlla. Mhm. Fatima bu ma ko woowee ne ko dama war a def rajo loolu lañ ma wax automatiquement la ma balancé cinquante cinq mille. Mhm. pour ma dem defee rajo. Mhm. léegi ma dem defi rajo bu ma demee leen di ma xool résultat yi lu muy kii lan lay joxe. kon fi mu ne nii résultat yi génnagul. résultat yi génnagul génnagul mais comme ñu ngi koy traité yàlla dina ci def jàmm. waaw ah, ñu ngi vraiment yàlla dina ci def jàmm ñu ngi ciy taxaw te bu ma demee foofu ñu baax laay tombé. dañ mhm. may jël en charge comme ni ma ko bëggee. déplacement yi bari sax ma koy def ñoom laay àndal toujours médecin. docteur bi mooy génn waaw. Mhm. docteur mu mooy génn ma ànd ak moom ci service bi moo la dem. Mhm. urologie keroog bu may dem foofu docteur bi ci boppam moo jiitu. mu ne ma kañ comme nit ñi dañoo bëri yow doo mën a raam fii mu demee mu woo leen ñoom ñi ñu entouré ma xool xool mu ne ndox la mais il faut ma def rajo dafay analyse bu résultat ñëwee dina xam nu muy demee mm-hmm. Ah, ñoom moom macha allah ndax nag mooy li may wax nag euh, ci wàllu jabet moom jamono ji euh, mooy euh, centre Marc Sangalé bi nekk fale ci fi nga xam ne rek mooy Abass Ndao macha allah ndax nag yenn saa yi nga gis nga am jabet di traité wu mais traitement bi doo ci gis maanaam njariñ mais nag gis nañ ne boo suivre sa traitement normal foofu Euh, dinay faral di tane kon nag euh, bu ma la laajee euh, tonton. Mm. bi fii commencé léegi ban bés mooy bés bi la ci gën a marqué. bés bu ma gis enflement bi. Hmm? bés bu ma yeewee ma gis sama tànk bi day néewi jour boobu ça m'a beaucoup marqué. Mm-hmm. mais na ma loolu ñëw dem di faju ji que damay rawar ñaar bekke léegi benn bekke lay doxe jour boobu nag ah sama xalaat sori na xalaat ma sama bopp mais sama njaboot laa doon xalaat ndax kuy joxe bu fi nekkulee te doole demeewu noon ah yàlla day yore lépp moo yore doomu aadama waaye day metti loolu jour boobu xalaat naa ko mhm. man ke sama toog sama rongo ñuy génn ma toog non dafa métti. souffrance bu nekk sama kaw bu ma woowee duma ma leen ne ta tanewul parce boobaa seen xel de jaxasoo dem ak dikk bi dina bëre. c'est pas facile. mu ne nii moom yàlla xam na ne soxla naa faju ba ma delloo nu ma meloon. te loolu c'est les moyens jamono bu ngi toll nii je suis à sept cent dix mille billaahi wallaahi tallaahi ci koo xamante dañu lay may. xam nga yaa ngi def nit ñi loolu nit ñaa ngi koy fay. même bu amee ñoo xam xamante amuñu dara sax dañuy ñëw dañuy ñëw seet si ma ma toog waxtaan ak ñoom parce que boo gisee say xarit say mbokk sa xel day dal. Mm-hmm. assistance ah, ah. Mm-hmm. xel day dal moo tax sama rakk bi bu ma ko yónnee photo yi ma ne ma non il faut ma dem set TV ma gis leen ma ne ah, ma ko amee ma jël. am na koo xamante sax dama jot ak moom mu ne parce que dañ lay génnee télé ma ne ko luy télé bon bu soxla ndimbal ci tàng tàng tàng bu ma demee ba ñuy génnee résultat yi ñu bind ay ordonnance laay wo na ko am na waaw sama sœur bi. Mhm. Fatima Ndong. Mhm. laay woo na naa ordonnance waaye laa sama jarbaat moom saa bu ma ko waxee ordonnance rek. daw na ñoo ngoon da ngay gis ne à chaque fois. dañuy daw lijjanti. lijjanti lu rapidement métti mais dañuy lijjanti kon tey jii ñi ñuy ñi ñuy seetaan euh, ku ci am ku ko mën a jàppale rek euh, nga jàppale ko numéro baa ngi noonu. ndax nag euh, sonn na njaboot la mu doonoon koo xam ne rek macha allah ku ko sóola woon cent dix kilos ku ko doon def nga xool ko léegi nii chétif mu doon loo xam ne rek lu métti la waaye nag ba tey dese na dara muy ngëm bi nga xam ne rek mu ngi ci moom. bu toogee njabootam lay xalaat njabootam tey jii bu fi nekkul kan moo leen di yor bu fi nekkul waaye comme ni nga ko waxee rek tonton dee ak hmm. feebar sorante nañu jotewuñu euh, dara hmm. euh, ba tax na rek euh, dañ lay bàyyi nga wax ñu ci li nga xam ne rek mooy tànk bi nan lay def par guddi day metti non guddi gi moom tànk bi moom léegi lii dafa yéeg plaie bi dafa yéeg ndax gis ngeen photo yi ngeen gis ni ci écran bi gis ngeen tànk bi nii la mel comme pansement la. Euh, dañ koy bàyyi nii du jar a dindi. Hmm. gis nga. ñëw euh, na ñëw ba ci oom bi. ñëw na ba ci oom bi. Hmm. Hmm. te xam nga ne boo gisee tànk bi. te gis nañ ne beneen tànk bi tamit commencé na def ay écailles. beneen tànk bi day futu nii rek. day futu. waaw. Euh, léegi néewi néewi boobu yéeg boo taxawee lu yàgg tamit dalay sonal. loolu mooy sama problème néewi néew bi daal leer na ma ne dinañ ko mën a dindi. mais ça demande de l'argent ça c'est sûr. waaw parce que hôpital du ñu la laal joxe ko. ah parce que tamit euh, loo xam ne ñaari bulletin d'analyse yi rek sa tourne autour de cent et quelques mille. vraiment. ordonnance ñëwagul dara ñëwagul ordonnance ñëwul paas ñëwul. Mhm. waaw dafa metti dafa waaye nit moom sax lépp da nga koy bàyyi ci loxo yàlla. ndax commencé woo désespéré. di ma. ne ndax commencé woo euh, am désespoir. non non non ma tëddee kay. toujours nit yaa ngi fi mais waxtaan ak ñoom toujours ñi kaf di ree waxtaan kaf di ree sama jabar yor na doom bu ndaw bu ñëwee sax moom day langaamu ci sama tànk bi. kii oh. la ne na bàyyi leen parce ki oom bi lay jàpp boobu amul góom xam nga boo xëyee. gis sa doom boo gisee loolu sa doom ñëw langaamu xale. mu mel la xamul dara tànk buy metti mu ci jéem a jàppandu lan lan la lay def. sama doom yu ndaw yi. Mhm. nekk foofu bu ma saa bu ma sax ju woote. bu ma wootee lu ma njëkk laaj ndax papa sa tànk baa ngi tane. mooy kii namp ni ci ku ko topp. waaw ci ku mu topp. toujours dëkk ba nit ñaa ngi woote ndax yaa ngi tane man kay nee naa boo boo jotee xale yi lan ngay sentir. non damay sentir ne dañ may laaj rek ah bu bu bu bul jëg da nga ñëw de parce que man tout le temps damay dem. Mhm. tout le temps dem waaw dinaa wax ak moom ma dal ma dalal seen xel. sama petit frère mu ngi foofu sama yaay mu ngi foofu dinaa wax ak ñoom ñëpp pour seen xel dal bon dama am sama beneen frère bu nekk Mbour aussi vraiment mu may taxaw Aliou Sané hmm. waaw maa ngi koy remercier de passage lu ma ko woo nu ma tuuti tuuti foofu mu am lu muy yëf hmm. ba pare dina ma woo saa su di ma laaj naka la yaram bi def ak jabaram surtout jabaram kon fi ne gëj nga village non ça fait tout un mois affaire bi nee na bi yëf yi commencé nii ba tey demo fa. non non. Mhm. mënu dem parce que lii ñoom xamuñu dara ci lii pour fa faj ko. Mhm. fii rek laa mën a def traitement ba mu ba tane ma mën a dem foofu. Mhm. sa jabar. bëgg na wax mënul wax. Euh, parce que oh. daanaka déggul olof. déggul olof euh, bu baax te tamit. Euh, affaire bi waaw ak situation bi mu demee naka nga koy dundee ak moom. non dama dama koy tooñ rek. dama koy draayé parce que sama sët bi lay àndal ami bu ñëwee dama koy tooñ defal lii defal lii dama bëgg nga lekk balaa nga dem dëkk ba ndax nga pata ngay jaay fonde ma koy tooñ mhm. ma ko léegi reer daal il faut ngay ak meew mhm. ak soow pour nga mën a am yaram waaw mhm. bu kiyee comme tam nañ ataaya danaa ko jox mu dem foofu pour ñu wettali ko ñu naan ataaya man ma tëdd ne la moom naka la koy dundee métti na ko trop métti na trop bu mu bu mu buggee wax rek ma ko non yàlla du ñaar kenn man maay kan ba ma feebar feebar bu yàlla tudd doomu aadama lu mu ci mën moo ci dara te deuxièmement man maa ngi ni mën a dox sama tànk ba jël tey bu may dem pansement sax ànduma kenn. Hmm, yaa yóbbu sa bopp maa yóbbu sama ñëw. Hmm. keroog dimanche ba la passé maa yóbbu sama bopp dem ñëw ma ko am da ngay di hôpital nga gis xale bu tuuti. ku musul am doom nga gis ko mu feebar ñi teg nañ leen ci balankaar ñii dee nag ñii ñu amputé leen waaw dafa ñoo xam dañuy takk dagg seen tànk ñi seen loxo la ñuy dagg yow eggoo ci loolu loolu jarul jarul ngay xalaat dara sant yàlla waaw ma ne ko santal sant yàlla euh, kon nag euh, dañuy dem xool témoignage bi des euh, sa jarbaat la ñu dem léegi daal del soit ci waxtaan bi laataa ñoo joxe numéro téléphone am yi ak li nga xam ne rek mooy ni ngeen di def ba daal di koy jot ku ko mën a dimbale dimbale ko ku jàmbaar la ku mënoon liggéeyam la te tamit ku doon jàppale njabootam la ñu dem xool del soit léegi ci seen émission 7 voix du cœur sama grand la quoi sama grand ñoo ñoo bokk benn kër quoi daa feebar feebar bi daa métti ci moom quoi non chaque jour day métti quoi chaque jour maa ci moom chaque jour bi dafa metti ci moom ko trop boo mun a dimbale nga dimbale ko waaw non non melul nii bi tànk bi day métti ko day métti ci biir quoi. temps boobu quoi mais day jékki-jékki affaire bi mu commencé mu commencé métti non Fass daa sori chaque jour passe trois mille francs aller retour aller retour six mille lay fa transport bi rek transport bi daa métti quoi moo tax quoi hmm. moo tax moo tax boo mënu boo mën a dimbale ko quoi jërëjëf euh, kon nag euh, kii sa jarbaat la moom it euh, naam olof bi setul moom it jéem na lépp ndax yow te amaana loolu yëpp boo gisee bokk na ci ni leen daan taxawoo ba ngay mënal sa bopp. Hmm. Mhm. waaw donc kay sama mbokk yi taxawoon nañ ma la wax ni sama jarbaat bi Assane Danso Fatima Ndong. ñu koy woowee Boora El Boora. Hmm. taxawal nañ ma ak sama benn grand frère mu ngi Kolda Moussa Fati taxawal nañ ma lool même association suñu beneen village bi jotoon nañ taxañ tuuti dajale ko yónnee ma ko. Hmm. démb parce que gis nañ ne dama feebar. Hmm. te ci biir loolu aussi day amay bonne volonté ni ma yónnee dix mille quinze mille vingt cinq mille. cinq mille waaw lu waay am rek. daf ma koy yónnee. ma am sama benn rakk bu tudd Bala saa sonk daa nekk chaque weekend bu demulee liggéey dina ñëw fi. musul dem yëkkatiwul lu ëpp 5000 jox ma. maa ngi koy remercier de passage moom it. vraiment. Euh, maanaam mbokk yaa ngi jàppale mais euh, feebar moo métti métti ba nga xam ne lu dugg day génn. non foofu kay fu ne nii xam nga ku indi 2000 francs di 000 jox na la paas ba pare. dinaa ci paas aller ak retour dinaa ci jënd ticket te dinaa ci ndekki man ak ku ma àndal. Mhm. parce que 6000 francs la ticket bi 1000 francs xool deret bi sax foofu Abass Ndao tu paie 1000 francs. 1000 francs. daa bi ak 1000 francs ak beneen 1000 francs bi ticket bi ça fait 7000 ça fait ça fait mhm. léegi 2000 yi des. dañoo ndekki ci. Mhm. xaar ba añ bi ñëw sama kër jarbaat la añ bi jóge bu añ yooyee ñu lekk ñoom ñu naan seen ataaya man ma tëdd nelaw mhm. waaw euh, jërëjëf kon nag euh, li ñuy def euh, mooy bàyyi la rek nga daal di joxe numéro téléphone yi pour képp koo xam ne rek bëgg na laa jàppale situation bi metti na Euh, waaye yaa ngi tenir euh, mais nag dafa fekk ne say mbokk ñu ngi ciy jàpp waaye lu ñëw nga fajoo ko ah, ba tax na ku la jàppale euh, surtout prise en charge médical bi hmm. jàppale la ci paj mi ba ñu faj li nga xam ne rek mooy li nga wax plaie bi métti na naam boo ko gisee si tele bi sax doo ko ñemee hmm. waaye nag li ci doy waar mooy dafa am leneen lu si wàll si muy dafa commencé def càkkaar yéeg ci kaw ba ci ndigg bi kon niñ ko waxee rek buñ leen waxee loolu war ngeen ne xam ne war naa daanu balaa muy àgg fu mu warul a àgg kon nag euh, ñu dimbale ko bu baax a baax euh, ma bàyyi la nga joxe numéro téléphone yi. waaw 77 la. 695 65 43. boobu mooy sama numéro day doon 24 heures sur 24. Mhm. waaw. Euh, kon képp ku la woo ci numéro boobu dina la jot euh, numéro baa ngi affiché euh, bokkul ak numéro bi nga xam ne rek képp koo xam ne bëgg nga participer ci émission bi moom ngay di woote numéro bi mu joxe léegi ku ko bëgg a dimbale da ngay jël numéro bi nga xam ne dañoo bind pour aider Bakary Sané pour participer ci émission bi nag am na numéro boo xam ne mooy le 77 566 02 47 pour képp koo xam ne euh, maanaam euh, am nga looy dund euh, mu metti lool 7TV dina la fa fekk ñu daal di ciy waxtaan ut ci solution boobu mooy numéro boobu mais numéro bi ngeen koy dimbalee mooy numéro bi ñu bind pour aider Bakary Sané kon nag mbokk yi ma bàyyi la rek nga wax ñu lan ngay tàggoo. Ah, xanaa kontaan si. Mm-hmm. cette cette TV di leen remercier aussi ndax soma sama téeméeri moromaa ngi fi soxla na nañu lii mais amuñu ko donc man buñ ma ko waxee deux jours troisième jour ngeen ñëw fii xawma dara ba dul leen gërëm di leen sant te ñaan yàlla yàlla dimbale leen sutural leen ngeen am gudd fan ngeen yàgg di taxaw ci néew doole yi amiin ah, loolu daal maa leen di ñaanal vraiment oma mhm. seen pay amiin jërëjëf mi fay na leen fay Euh, merci beaucoup du courage ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñu nit euh, di ko rek euh, wax ne comme ni mu ko waxee léegi nii feebar doon na loo xam ne doy na waar mais nag bu ci ñëpp jàppee rek dina wér jabet encore une fois war nañoo xoolaat. Euh, li nga xam ne rek euh, moom lañ ciy def euh, association yi bëri na ñi nga xam ne rek ñoo koy xeex bëri na waaye nag mu ngi def ay ravage ci mim réew jamono ji xale boo gis dafa am jabet xale yu bëri dafa am jabet ñun tamit ñu jéem a am naam nag am na ci yoo xam ne c'est héréditaire maanaam dañ koy donn ci hmm. seeni wéjjo waaye am na ci yenn yoo xam ne maanaam manque ci li nga xam ne rek mooy hygiène ci sa alimentation da koy def li nga xam ne mooy maanaam lu la neex nga lekk buf tout boofu boftu loolu war nañ ko moytu euh, sensibiliser nit ñi tamit ci li nga xam ne war nañ ko lekk ak yi nga xam ne war nañ ko moytu euh, moytu yenn boisson yi amul benn njëriñ euh, da koy naan léegi mu neex léegi après mu indi la yenn problème yoo xam ne doo xamante foo koy lijjantee kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax di wax ne nag nañu dimbale ki nga xam ne rek mooy Bakary Sané numéro yaa ngi noonu pour képp ku ko bëgg a dimbale di leen jox di daje mardi encore ak keneen ki li ci xolam ñu dem di leen wax ne rek jaajëfal euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ma jaajëfal équipe de production bi yëpp ñëpp ñu ci jàpp ci kaw ba ci suuf euh, waa montage Lamine Mbeng ak ñi ci ginnaawam yëpp ñu ngi di jaajëfal jaajëfal Souley Sy ak euh, Papa Diop ci wàllu cadrage bi Père ci wàllu logistique bi fi amani la laa laa leen di wax jaajëf kon nag di leen jox di daje mardi incha allah ci beneen numéro 7 voix du cœur sur la 7 TV kon nag jaajëf merci beaucoup